Thank you. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñu seetaan à travers seen site bi di DS Prod USA tey nag waa DS Prod ñoo ñëwaat ci seen micro pour tous fas dalal benn ndaanaan ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté borom États-Unis waaye ki nga xamante ni defe naa ni lu mu sinabul baaxul waaye dafa ñëw ci beneen ni façon beneen ni level balaa ñuy dugg ci loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu mbokk internet yi lay seetaan ci biir site bii di DS Prod USA Sankara def. Astou nuyu naa la na nga maa ngi lay fay bu baax a baax ñu ngi lay nuyu di la dalal si sa présence fii ci DS Prod biir Sénégal waaye di la dalal ci nga xamante ni yaa ngi jóge ba États-Unis ñëw Sénégal alors Sankara moon nañ la de waa Sénégal namoon nañ maa leen raw foofu macha allah maa ngi nuyu waa Sénégal balaa dara maa ngi nuyu suñu kilifa diine yi di leen wax yàlla leen fi yàlla yàggal. Mhm. di màggal suñu kilifa diine yi bu baax a baax di di nuyu les Sénégalais. Mhm. yi ma fi di wax les sénégalais de l'extérieur je suis de tout cœur avec eux. dëgg mhm. macha allah kooku mooy Sankara Mbaye mu ñëwaat fi nga xam te ne mooy Sénégal dëkk dëkkam nee nañ euh, euh, euh, dëkk ba lu mu neex neex neex xam nañ ne fi nga xam te ne mooy fi ñu jógee ku mel ne Sankara doy na exemple alors Sankara ñu gis la fan yii nii nga ñëwaat Sénégal indi beneen façon Sankara Sankara dañ ko xamoon ci ay snap ay kaf ay ree ay nekk yeneen di roubé nekk animateur ñu gis la nga yor sa benn parti politique ñëw daal 100 pour cent politique lan moo waral lool ak lan lan ban inspiration la dikkee ngay def politique. waaw asu macha allah ça c'est dina ma neex loolu ma répondre ci. Euh, xam nga ni ba léegi nag ñi ngi ci ñi ngi ci snap bi ñi ngi ci woy bi ñi ngi ci fecc bi. mais dafa fekk ni euh, boo demee ba benn instant sa dëkk soxla boo demee benn instant mu nekk loo xam ne lu réalité revenir dans réalité dans la réalité da ngay da ngay taxaw nga mettre en stand by nga xool li nga xam ni moom mooy yoon. ñu def ko. parce que ni ma ko waxee rek sunu avenir la suñuy avenir doom la du ñu bàyyi keneen di ñu ko diriger. macha allah looloo tax lépp lu ñuy mënti def di kaf di ree dañ koy continuer di ko def. Mm-hmm. mais nag bu politique soxlaa bu réew mi soxlaa dañuy arrêté fo bi. Mm-hmm. ñëw lijjanti suñu bopp ba pare delluwaat ci po mi. delluwaat mm-hmm. dëgg la waaye dañoo gis nga ñëw ci beneen level ñëw ci beneen tàngoor ñu gis la nga contre trop ki nga xam mooy président actuel muy Macky nga koy teg ay affaire yu metti daal moo waral loolu. Euh, contre ma président Macky contre ma ko du acharnement comme ñi ko ñenn te wax dëgg yàlla contre ma ko ndax ñun ñoo ko xeexal en 2012. ñun ñoo fi nekkoon di dóorante ba nga xam ni tey nguur gi bu ko amee ci loxoom ñun ñoo tax la jeunesse. contre ma ko dafa fekk ni rek euh, moom la yet wi dal. moom moo ñëw taxaw ne fal leen ma. te comme que moom moo ñëw taxaw ne fal leen ma ñun ñu koy fal te ñun bokk na ci ñi nga xam ne dañuy cotiser ci l'argent du contribuable mm-hmm. donc on a le droit de wala on a le de dire non mm-hmm. ba pare on a le droit de dire notre opinion kon bu bàyyi woon nguur gi doo si wax si moom ay waxu Sankara Mbaye la alors Sankara Macky Sall dafi nekk ay yeneen kujje ñoo ñeneen ñoom te ne ñi ngi euh, léew toog moom ci wàllum politique ñu ngi fii ku ci mel ni Ousmane Sonko pourquoi yow ñooñu euh, euh, waxoo ci ñoom dara gisoo ci ñoom wala ñoom da nga gisoo ci ñoom benn sikk non du loolu c'est que loo leen wax tooñ leen ndax faluñu leen mm. ñoo ñu ngi tudd ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tànk ko joxuñu leen suñu réew mm. loo leen wax da nga leen di tooñ. mais jamono yi ñu génn yëngal nañ Sénégal ku ci mel ni Sonko yëngal na Sénégal bu baax a baax jeunesse yi ñii di xuloo ñii di meroo coow yu bëri lool lool. waaw c'est c'est normal combat politique la c'est normal. combat politique la mais li ma mën a wax rek ñoom ñëpp ko ci tudd da nga koy tooñ. Mm. ndax faluñu ko. ki ñu fal jox ko suñuy lengee jox ko l'argent du contribuable. Mm-hmm. nga xam ne bu sol bu takkee cravate sax taxaw ci seetu bi xool boppam mu xam ne rafet na. Mm. war na koo santee sénégalais yi. Mm. te ñun ñoo ko jox suñu xaalis kooku lañ war a waxal leneen lu ñu wax keneen dañ koy tooñ d' accord mhm. alors pourquoi tu Tunkara Tunkara bi nga xamante ni jamono yi moom tamit mi ngi mi ngi ci kaw Macky Sall kooku moom acharnement total lay def ci nga xamante ni moom mooy Macky Sall moom lañ fi te mooy président donc lu ñu war a laaj moom lañ koy laaj lu ñu war a waxal moom lañ koy waxal du acharnement li tax may euh, supporter Ousmane Tunkara c' est frère. Mhm. nekk un émigré te ñun émigré yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Euh, bien vrai que ni sometimes dinañ a d' accord ci yenn forme combat mais tamit sa mbokk sa mbokk bu nekkee ci jafe-jafe da koy jàppale te li may wax saasu ne rek kilifa kenn du ko yeddi kenn du ko yeddi ci pénc mm-hmm. te xam nga ni li mu doon wax ñëpp cent pour cent ñëpp a ci d'accord ñëpp ci d'accord mm-hmm. c'est nag dafa am ay contexte yoo xam ne noonu la ñuy xeexee mm-hmm. man Sankara bay duma xeexee noonu you know mais cela veut, ne veut pas dire que ni je ne pas lui supporter je suis de tout cœur avec lui et que ci kattanu suñu borom yàlla na ko yàlla génnee fa mu nekk Mm-hmm. incha allah yal na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed waaye Sankara jamono yi ñu génn dañuy dégg ni da nga jot ay menaces gars yi commencé di la sonal ndax yi ngay wax ak yi ngay def engagement bi nga jël est-ce que loolu c'est vérifié. waaw waaw lu am la lu am la et xaar nañ ko nag. xaaroon nañ ko parce que daanaka jiituwuñ du du man du man la njëkk a dal. gis nañ ñoo xam ne ñooñu ci jiitu foofu. Euh, nekk ci combat bi mais lu mel noonu da leen da leen di arrivé. te comme ñi fi nekk moom bëgguñu ko wax daa bëgg saa su ne ku leen di ragal seen i ginnaaw. Mm. te ñun bokkuñu ci ñooñu cela veut dire que ni euh, le pire reste à venir. le pire reste à mm-hmm. dëgg la ngay jeune nag euh, nekk père de famille nekk ki nga xamante ne nii xale nga daal nekk ci yoon est-ce que loolu du la amal ay gàllankoor ci sa avenir. waaw. Euh, loolu la ñëpp di wax. mais tamit bu réew mi soxlaa ñëpp war a ñàkk. le Sénégal a besoin de nous. parce que le Sénégal souffre les Sénégalais souffrent dëkk bi gis nga li fi ne. dëkk bi nag euh, bu ñu gisee li fi ne dañuy jël sunu mbubu influenceur tegee ko de côté. Mm. parce que nag dañu waxante dëgg. fii lu ñu fi mënti doon sénégalais yee ñu ko def bu ñu demee tey ba bu ñu ba Sankara Mbaye war a Daba Mbaye toll fii sénégalais yee ko fi def sénégalais yi ñoo ñu ko def donc bu bu la Sénégal soxlaa dañu war a ñëw taxaw représenter Sénégal mm-hmm. ba ñu génn ci loolu ñu solaat suñu mbubb mais fi mu ne nii sénégalais yee soxla dañuy représenter les sénégalais mm-hmm. Mm-hmm. loolu Sankara nekk koo xamante ni ku bëri bruit la daal jamono yi ñu génn da déggoon na li si yeneen bruit ñu pare waat déggal la ci politique bi Sankara sonnoo sonnoo sa sa famille sonn ñu déjà fan yi ñu génn ñu ngi lay dégg ak ki nga xamante ni mooy njoletaal ay coow yu bëri bëri foofu nga xamante ni mooy Las Vegas ak mu géet coow yu bëri am Sankara indi Sankara d'ailleurs ñun ñu bëggoon nga leeral ñu tuuti ci li nga xamante ni ci loolu nga génnoon muy affaire njoletaal bi ba xam yow naka nga ko dundee bañ jamono yooyu ñu la wax loolu naka nga ko dundee lan nga doon yëg waaw man nag noppi garmi laa yor du ma déglu lu ñaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ah doo déglu lu ñaaw. ba yi nga xam te ni la wax yëpp amul dara lu la affecté deful dara. noppi garmi laa yor. fitu gaynde laa yor du déglu lu ñaaw. dëgg la mm-hmm. ah rafet na kon bokk mu ngi noonu ñuy wax lu ñaaw. tout le temps di def Sénégal daal dafa war a neex dañu war a waxante lu rafet di defante lu rafet moo gën a rafet ndax ay sénégalais lañ alors Sankara ñu gis la ngay père de famille mais dañu gis ni yow benn sa benn doom rek ngay sinabanteel ñëpp Sankara Daba lañ xam pour sénégalais yow benn doom nga am est-ce que c'est vérifié que benn doom nga am wala am nga yeneen doom mais Daba rek nga ci nekkal daal. <laughs> damaa njaboot nag macha allah dafa fekk ni yat bi Daba Mbaye la dal. yat bi rawaani moom la ñu feeñu xam nga dañ day ay doomu géwal. dëgg ay xàmb yor i tuur rawaani nag daba mbay maag daba mbay lañ song man sunu kër du man rek maa fa nekk am na am na naa ay rak mais ñoom sunu kër bëgguñu coow mais ñun daal la rawaani song yaa ak daba waaw waaw maag daba macha allah yàlla na leen yàlla lafal cat bu baax a baax alors euh, mën nañu xam lan moo la indi réellement Sénégal affaire politique bi la wala vacances la wala lan moo la indi réellement Sénégal li ma gën a indi indi indi indi Sénégal bokk na ci euh, mbiru Ousmane Tounkara pour wa yëgal les parce que gis naa ni euh, manipulation am na ci te que et que manipulation négative boo xam ne bu ñu ci jógul mën na demee beneen côté. Mhm. mais loolu moo gën a tax ma ñëw te gis naa ni tamit mbiru wàllu terrorisme la ñu wax. Mhm. te wàllu terrorisme dafa nekk lu sensible nga xam ni kenn ñemewu cee wax. Mhm. comme ñun tamit euh, macha allah am na foo xam ne mën nañ fa féete dañ ko fay féete rek ndax Ousmane c'est c'est notre frère. duñ ko seetaan wax naa ko waxati ko mag kenn du ko yeddi ci pénc. Mm-hmm. dëgg la ma kenn du ko yéede ci penc loolu moom moo ay kàddu yu wóor la yu leer la alors ñu gis ni yow yaa nekk jeune bi nga xamante ni influenceuse premier ki nga xamante ne mooy def snap ba gars yi yëpp di la ci roy ba pare Sénégal saa yu ñu nekkee ci ay jafe-jafe ay tolof-tolof yow la ñuy gis yaay engagé wu yaay wax ak fit Sankara loolu nan la lay duggee fit gi ngay àndal di wax di classe amoon lenn looy ragal amoon dara looy nëbb loolu nan lan la xam nga sénégalais la wala lan la. xam nga fier d'être sénégalais d'être africain. Mhm. ba pare xam nga gars yi bu ñu la tënkul rek maanaam bu ñu la joxeelu sa dépense rek yow doo leen ragal. dëgg te wax dëgg yàlla nag seen sama dépense dépendre ma ci ñoom. mais comme li ma mënti wax rek influenceur ak lu mu ci mënti doon borom tur ak star. Mhm. bu la Sénégal soxla da war a ñëw taxaw. te fii lu fi waay mënti doon sénégalais yi ñoo la ko def. bu ñu demee ba ay millions de nit di ma suivre bu ñu demee ba publicité yi di ma njëkkee. bu mu demee ba di ma njëkkante du moins bu ma demee ba am benn aura bi sénégalais yi ñoo ma ko def. donc bu sénégalais yi soxlaa dañu war a mën a ñëw taxaw jàppale leen. ndaxte politiciens yi bu ñu leen bàllee ñu bu ñu leen bàyyee ñu taal réew mi. ba pare gis nañ manipulation yi nga xam ne yépp ñu ngi koy def. Mm-hmm. waaw. dëgg mm-hmm. lay gën a gis ci snap bi di la gis ci yeneen comme ni nga koy waxee ci wàllum way yeeg yooyu ambiance mais à part loolu lan mooy sa liggéey lan mooy sa profession de manière générale. waaw damaa bari profession nag. <laughs> man nag bokkuma ci ñi nga xam ni de euh, euh, système bi daf leen di tënk ne leen lii rek nga war a def man lépp laay je suis un camionneur. Mhm. maa ngi ci lépp daal maa ngi ci lépp damay damay bañ xam rek gars moom des fois ñu. <laughs> la catuwaal pour gouvernement bi am na fu ñu lay. Ah, dañ lay kii waaw bu ñu la ah. xamalee bu ñu xamalee. yasaay maa ngi ci lépp. yaa ngi ci lépp. Mhm. d'accord bu ñu xamee say mbir mën naa am ñu def la ay ndëgg sërëx ak mel noonu. Mhm. Sankara fi nga ko teg foofu la alors Sankara balaa ñu tëj ñu laaj la lan mooy say projet ci politique bi ci euh, ci sa liggéey ci sa famille lépp lépp de manière générale lan mooy sa projet fan nga teg sa bët jamono yi waaw fi ñu teg suñu bët nag actuellement dañu créer benn mouvement boo xam ne mu nekk MNJ mouvement national de la jeunesse. Mhm. te mouvement boobu dañ ko créer uniquement pour jeunesse bi du pour Sankara Mbaye du pour ñooñi Sankara Mbaye mais c'est pour la jeunesse. c'est pour la jeunesse africaine. Mhm. pour la jeunesse sénégalaise. Mhm. uniquement pour que ñu ñëw taxaw nag xool il est grand temps. parce que nag dootuñu fi nekkati. parce que auparavant dañu gëmloon ni euh, mag mooy def poli politique. politique mm-hmm. mooy def politique. Mm-hmm. te boo xoolee ñun suñu avenir duñu leen bàyyi ñoom ñuy toog di ko décider. donc il est grand temps que jeunesse bi jóg daal ne nii la ñu bëggee sunu sunu dëkk. Mm-hmm. parce boo xoolee ni euh, euh, South Korea. lan moo ko développé lan moo ko développé de Revolution Tiger. mooy ñi nga xam ne dañoo nekkoon émigré génn dem jàngi baam am xam-xam ñoo ñëw tey développé seen dëkk. ndax bépp. xam-xam bu tubaab bi am. Mm-hmm. jeunesse africaine jeunesse sénégalaise bi am na ko. bépp diplôme bu tubaab bi am. Mm-hmm. jeunesse africaine bi jeunesse sénégalaise bi am na ko. donc quel le problème ba mënuñoo am ndox mu ñu naan. Mm-hmm. donc nag il va falloir que mbir yi pour mbir yi changé il va falloir que ñu ñëpp ñu toog. daal di nag jàkkaarloo xool lan lañ mën a def et que dootuñu bàyyiti ñii di diriger suñu life. dëgg la te dañuy seetlu ni que ñoom ñi koy <laughs> mooy mbirum Macky Sall yow d'accord nga ci à ce que suñu président bi di Macky Sall jël troisième mandat wala da nga bëgg moom mu arrêté carrément. ah lan la constitution bi wax ba pare même bu ko constitution bi waxee sax la le moral ne l'accepte pas. fi ne loolu moom xalaatu ko. Ah. loolu moom fi mu ne na na lambi leneen <laughs> na ngemb mbërëm man daal bu doon may moom ma bëgg ko lool <laughs> dama naan koo ngembal sa mbër mu ñëw bëre <laughs> waaye yow de boo duggee ci làmb xale Sankara yaa ngi fi de ah. xale yi màgg nañ de. ak tu ñoom Tunkara ak ñoom ñëpp. le monde a changé ak xale yi màgg nañ te jàmm lañ bëgg ñun. jàmm lañ bëgg ak ndox mu ñu naan ak lekk ba suur. lekk ba suur loolu rek la ñu bëgg. Mhm. loyer yi cher na euh, facture yi cher na lépp cher na Sénégal am na pétrole am na or mais tout le temps yi yi mi ngi gën a métti. te duñ ko jariñoo ñu gën a metti duñ ko jariñoo bëkki dee moo njaay lañ nekk nga xam te ne mooy problème mu essence am fii te Sénégal am pétrole loolu est-ce que c'est normal euh, de l'émergence ndox am on n'a même pas de ba may ñëw maa ngi gis maire yi di marche taxaw baare tali bi ne loolu la ñu ne la ñu ne amuñu ndox mu ñu naan. et après tu nous parles de l' émergence. mouvement national de la jeunesse. incha allah rabi on va changer les données. incha allah mhm. kooku mooy Sankara il vous promet ça nee na mouvement national de la jeunesse kon boog jeunesse yu bëri ñu dem rek daal di koy dooleel incha allah alors Sankara la ngay tàggatoo ak waa DS Prod waaw li may tàggatoo mooy euh, di sant borom kër gi DS production mi nga xam ne moo nekk Amérique fa tabaarakallah macha allah doon fa dara. Mm-hmm. ma ngay toj Amérique te incha allah rabi mi ngi liggéey. Mm-hmm. boo leen gisee liggéey bi yomb liggéey bu yanj bi moom ak gars yi équipe am bi ñoo ko ñoo ci taxaw. fa tabaarakallah macha allah pour wane seen participation ci dëkk bi et que c'est possible. nii lañ ko bëggee ni ko DS defee nii ne ko ñëpp defee noonu Sénégal ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. lu ñu mënti yàgg bitim réew bant du yàgg ci ci teen ba doon ba du yàgg ci géej ba doon jën. lu ñu mënti doon rek. Sénégal moo ñu ñor. ndaxte mënoo rëy rëy rëy ba gën a rëy fa nga juddoo Sénégal la ñuy tiitaroo. Mhm. Amérique lu mu neex neex état yeneen dëkk yi lu ñu neex neex Europe lu mu neex neex. Mhm. ñun fii la ñu am fii la ñuy tiitaroo. donc dinañ ñëw ñu defaraat ko li ma bëgg a lancer benn message mooy asu mooy. Mhm. mouvement national de la jeunesse bi. incha allah rabbi d'ici 2023. gars yi ñi ngi def magnification bu am doole nag à l'étranger. ñi ngi koy waajal barki démb dem naa Saint-Louis. am na ay jeunes yu ma dajal. macha dem naa Turquie. am na ay jeunes yu ma dajal États-Unis tamit noonu mais ci kattanu suñu borom. ñi ngi waajal ay mbir yoo xam ni euh, bëgg nañu 7 de jeunes d'ici 2023. maanaam 7 millions de jeunes d'ici 2023 donc je suis 7 millions de jeunes d'ici 2023 mouvement national de la jeunesse. loolu tamit ci la bokk ASSO. Mhm. waaw balaa dara tamit damay remercier ñi nga xam ne mooy comité de soutien d'Ousmane Tounkara bi. Mhm. ki ko jiite muy maam Thierno Ndiaye ñi ngi koy ñi ngi koy ñi koy remercier sonn na lool. Mhm. macha allah waa New York City. waa comité. Euh, de soutien Ousmane Tounkara bi. jigéen ña fa nekk tamit ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal seen liggéey rafet na. li ma mënti wax naal mooy incha allah bi damay lancer message di woote les sénégalais de l' surtout ñi nga xam ne ñoo nekk aux États-Unis mhm. surtout particulièrement à New York City mhm. nañu ñëw le 11 ñu dem supporter Ousmane Tunkara ñu ñëpp ñu àndandoo def mbooloo mhm. ci kattanu sunu borom yàlla may ñu ndam yàlla may ñu ndam incha allah yal na leen yàlla yi nga xamante ne dañoo diñuy xeex di di def lu nekk ngir li nga xamante ne mooy avenir u sénégalais yi ñu ngi ni ñaanal jàmm di la ñaanal sa avenir politique yàlla defal la si jàmm lépp li nga bëgg yàlla defal la ko kooku moo nekkoon Sankara Mbaye ñu ngi koy remercier ci teewaayam fii ci DS Prod ñëwoon dekk ci émission bi nga xamante ne mooy micro news waxtaan bi defe naa neex nañu leer na si suñu bopp waaye leer na ci seen bopp man nag damay remercier ki nga xamante ni moo ma solo jàllaabe bu rafet bi Fat Mbacke borom Miss Monde boutique yaayu Miss Monde daal di may solo jàllaabe bu rafet ne ma asu deman defe naa ne bii c'est pas la première fois mu ngi koy yàgg def ñu ngi koy remercier bu baax ku soxla jàllaabe yi ak accessoire yu bëri lépp loo bëgg luy saag dàll accessoire bu mën di doon que ça soit góor wala jigéen danga koy foofu di Ouest en face euh, euh, jardin d'enfant bi numéro am di 77 664 56 34 boo ko fa fekkee di nga am li nga bëgg dina la dalal jaay la lépp li nga bëgg d'ici là portez-vous bien et restez scotchés sur les programmes de DS Prod USA bye